Euh, kàddu gu diis la mais am na ñoo xam ne tey seen crédibilité dañ ko ñàkk parce que nit bu fekkee dañu def benn affiche ne tey diw war naa wax nga xool internet bi genn wàllu géeb ne lan la nar a feneti wala lan la nar a sosati mais loolu foofu lu fa deseti dama ne même su fekkee état la ñuy liggéeyal ci loolu état war na tànn ñeneen mhm. parce que ñi mënatuñ jàllale dara même ñu demoon bay wax dëgg sax nit ñi dañ ciy dute mhm. dañ ciy dute donc euh, war nañ xoolaat seen bopp xam ne euh, xëy na da nga am occasion pour wax mais ñi lay déglu ñoo la gën a xam li ngay wax ñoo gënoo leen informer gënoo leen xam bon loolu laay faral di wax tuuti euh, fan yi ma ne xoolal même chroniqueurs yi sax da mhm. gis njuumte yi ñuy def ci les frères musulmans mhm. dégg naa si koo xamante ku muy comparer les salafistes salafistes yi ak frères musulmans yi ma ne xoolal ma erreur bii rek loolu ñàkk xam la <laughs> mhm. kii li muy def tey euh, xam moom xamul ba léegi ne tey boo demee Arabie Saoudite fi nga xam ne fa la salafie wahabiya nekk mhm. les frères musulmans dañ leen considérer comme ay terroristes est-ce que xam nga loolu hmm. dañ leen interdire ma considérer leen comme terroriste képp koo xam ne da nga jege euh, idéologie frères musulmans yi tey ñoo fees dell ci kaso Arabie Saoudite yi léegi nan ngay jëlee loolu ba pare di leen comparer. <laughs> non mais dama ne. ñàkk xam ñàkk xam dafa bari. léegi beneen bi kan moo am kan moo kan mooy xam taarix Ramadan ba pare. di di jël taarix naan ko. Euh, ci frère yi la bokk parce que Hassanil Banna mooy maamam. Mhm. mooy da xam ne kii xamul li xew. xa mhm. mhm. taarix mosul nekk frère. jegew leen. bon c'est un is. li mu nekk sëtam moo tax ñu. ñu foog ne fa mais yow intellectuel du def démarche boobu. diw sa sët la mais yow amoo maam joo xamante ne ni day nekk mu day nekk tijaan wala nga maamu tijaan kële nekk ibaadu mm. looloo fi fees dal Hassanil mm-hmm. Banna papam moo doon frère bi Jamal Abdou Nasir nekkee di fitnaal frère yi frère yi am ñoo xam ne dañoo daw génn réew ma ñii dem Londres ñii dem Amérique ñii dem France ci la Moustapha Ramadan ñëwee ñëw ñëw ñëw ñëw Suisse parce que moom Hassanil Banna moom la mayoon doomam bu ñuy wax Wafa wafaa mooy yaayu taarix ñoom taarix Europe lañ juddoo ak frère am Hani Ramadan mm-hmm. ñooñu ay tubaab lañu mm-hmm. donte seen maam euh, arabe la mm-hmm. euh, moo fondé les frères musulmans taarix si ñu gën a critiquer frères yi ci la bokk maanaam tey ñu bare bari ci frères yi dañ koy mere parce que moom dafa jàpp ne peut-être ligne bi Hassanil Banna tëraloon frères yi dañ koo wàcc am na critique yu bari moom it moo daanaka mook mook frère yi dañuy mbëkkante ci wàllu xelaat donc kooku nan nga ku kan moo xam taarix ramadan ba pare ñu naan la frère la nga koy gëm loolu hmm. loolu doo ko wax kenn ku xam mouvement islamique mu nekk débat ci ñoom hmm. mais tey def nañ ko débat beneen bi journaliste bi ñu wax Sabir Mashour hmm. boobu ñu tudd Sabir Mashour nekkul Qatar Sabir Mashour journaliste boo xam ne kenn yilifu ko la xam nga dañuy wax ne Sabir Massour mhm. moo wax moo bi mu defee kii ci Ousmane Sonko moo wax Qatar nañ jàppale nañ jàppale Ousmane Sonko mhm. dégg nga parce que euh, Sabir mhm. moom dafa dawee réewam daw làkku la actuellement Turquie la nekk maanaam ni muy critiquer Assis yi Sabir noonu lay critiquer les frères musulmans donc ñaar ñi ñu si tudd ñëpp kenn du ci frère kenn du waaw <laughs> c'est que man damay wax ne vraiment sénégalais yi dëgg-dëgg war na seen seen journaliste yeeg yéen chroniqueurs yi <laughs> war ngeen jàng islam tuuti quoi que am na am na yoo xam ne ku koy wax du li nga wax ni imam est-ce que nit jàng na islam te xamu ko ah? am culture aussi tamit euh, waaw mais mais li li solo kon mooy su fekkee xamoo benn mbir bu ci wax nga bañ ci xuus bu ci parce que man gis naa ñoo xam dama leen naw mm. mais bi ñu abordé les frères musulmans liñ ciy wax dama naan mais ñii seen dayo waroon waroon ñaar waroon naam waroon ñoo xam lii mhm. wala biñ ko xamul war na cee nopp nag internet dafa papier da dem lire mais papier parfois mooy am manipulation. comme ni nga ko waxee nii boo duggul ci biir étude yi. Mhm. ba sori ci. lu la manipuler dafa yomb imaam. Mhm. Mhm. parfois loolu la da ngay si benn texte comme ne ku ko bind amaana seen noonu la. yow comprendre mu def description wax ci loo xam ne du noonu. yow foofu rek nga yem peut être mosoo voyager xamoo leen gëstuwoo ci. nga daal di jël loolu naan ko rek ñëw toog ci plateau bi. commencé gis nga gis nga Hassanul Banna. bi ñu ko faatee ba léegi. doomam mosul jiite les frères musulmans sëtam mosu koo jiite. benn doom boo góor la amoon. ñu koy tuddee Ahmad Sayful Islam kooku musul jiite frère yi ba ni mu faatu Hassan al Banna bi mu génnee àddina ki ko ki ko remplacé mu euh, Cheikh Hassan Hudaybi la tudd mhm. Hassan Hudaybi bi mu génnee àddina Omar Telmasani moo ko remplacé Omar Telmasani bi mu génnee àddina euh, Seyd Hamid abu Nasr moo ko remplacé Hamid abu Nasr bi mu génnee àddina Moustapha Machour moo ko remplacé Moustapha Machour bi mu génnee àddina Mamoun Hodey bi moo ko remplacé Mamoun Hodey bi bi mu génnee àddina Mahdi Akif moo ko remplacé hmm. Mahdi Akif dafa démissionné jox Mouhamad ah, Badia Mouhamad Badia moom la assise yi tëj actuellement hmm. ki jiite les frères musulmans partout dans le monde hmm. mooy euh, Mouhamad Badia kooku 2010 lañ ko tëj actuellement il a plus de presque quatre vingt ans donc ki nga xam ne moo koy doxal Sal Salah Abdul Haq daf ko wuutu hmm. avant ko ki nga xam ne moo doon bi ñu jàppee Mohamed Badia ki diriger mouvement bi ci àddina bi doon ko doxal Londres la nekk hmm. mooy Ibrahim Mounir hmm. kooku at yi la faatu moom tamit donc euh, frères musulmans yi dafa am dëkk yoo xam ne dañ leen considéré comme ay terroristes am dëkk yoo xam ne dañ ne lii du ñu ay terroristes mais ay politiciens lañ naka la ñuy nekkee ay terroristes dem élection Mouhamed Moursi gagné. Mouhamed Moursi li ko fal moo ëpp li fal François Hollande. Mhm. ñu jël pouvoir bi ba pare armée bi ñoom Sisi occidentaux yi ngemb Sisi ñu daaneel ko ba pare daal di teg sa mouvement bi terroriste. Mhm. donc pour rek ñu bañ parce que fu ñu demee élection ñooy gagné. Mhm. ñoo fees dell ci parlement bi nga bëgg leen def ay terroriste tey mu ngi mel ni. Euh, suñu suñu réew yi nii. Euh. parti boo amee doole. ñu xam ne boo demee élection da ngay kii ñu xool lu la taxal ba doo dem. léegi beneen bi mooy frère musulman yi gis nga il faut nga comprendre leen ci àddina bi gis nga euh, intellectuel musulman yi partout dans le monde boo jëlee téeméeri intellectuel mën ngaa wax ne juróom fukki yi wala juróom benn fukki yi wala juróom ñaar fukki yi soit frères yi ñoo lay jàngal wala kuñ jàngal jàngal la loolu il faut nga xam ko mm-hmm. ci wa domaine yëpp ay ay ay kàngam lañu ci xam-xamu lislaam yi ki ci mujjee génn àddina mooy Cheikh Yusuf al Qaradawi mm-hmm. moo bind le licide et le li xawma lan mm-hmm. al xalaal wal xaraam mm-hmm. téeram boobu mooy bi ant ki jànkat tubaab bi gën mais est ce que xam nga ne Cheikh Yusuf Qaradawi boobu jàngal na sëñ Maodo waaw sëñ Maodo Malick si dabbaax waaw jàngal na ko ñu bëri ci fii ni frère parce que ñoo nekk ci université yu mag yi ci àddina bi ñoo nekk Algérie ñoo nekk Arabie Arabie Saoudite tey ña fa nekk ñi ci ëpp intellectuels yooyu noonu ñii Mouhamadul Ghazali moo leen jàngal ñii Mouhamad Qutb rakku Seyd Qutb ñoo leen jàngal ay intellectuel de haut niveau la ay universitaire lañu donc looloo tax seen xelaat mhm. da ngay xam aspect yi nga koy xeexee frères yi bi ñuy juddu dañu judd ci contexte boo xam ne laïcité mu ngi doog ñëw ci monde islamique bi 1924 bi ñu daaneelee xilaafa bi Moustapha Kamal indi indi indi nu mu tuddati laïcité ci monde islamique bi mhm. quatre ans après vingt-huit ci la Hassanil Banna daal di créer les frères musulmans maanaam li ñu ñàkk turki mhm. tasaare jullit yi mhm. Mhm. frères yi dañu bëggoon jóg pour dajale ko dajale waat ko moo tax ñoom dañuy wax ne seen idéologie bi du réew du couleur mais partout la moo tax danga leen boo demee Malaisie da nga leen fay fekk dangay dem Indonésie fekk leen fa Af Afghanistan ñi jiite woon jihad bi par daanaka bi ñuy xeex Union soviétique y compris ba ñuy influencé la Laden boo xoolee Abdullah Azam la kooku ci frères yi la mais lan moo tax ñu ni tax de terroriste imam mais xam nga dafa am li ñuy tuddee islam politique. Mhm. islam politique mooy islam buy wax ne dafa war a jël pouvoir doxal ko. parce que bu ñuy gëmee ne ci Machiavel la ñuy référé wu ñuy référé wu ci Jules Ferry ñii nekk communiste lañu. Mhm. mais am nga droit ne man yontu yàlla Muhammad mooy sama référence ci politique. léegi li ñu bëggoon ne l'islam bi dootul wax lu jëm ci wàllu atte frère yi ne lool bu fi nekkee parce que l'islam bi nag bi ñu jàng nag ñun. dafa am atte. Mhm. yontu yàlla Moussa dundam yëpp politique la yontu yàlla Daouda politique dégg nga yontu yàlla Souleymane ñooñu ay état la ñu yor. dul mhm. xarnay ni dafay dirigé woon àddina bi loolu alxuraan moo ko indi. Mhm. léegi tënk bi ñu leen tënk naan la ci julli ngay yem ci woor xasanil bannaane l'islam bi global la. Mhm. moo tax ñuy islam la globalité de l'islam. mooy li nga xam ne mooy tënk idéologie frères musulmans yi la globalité de l'islam. mooy l'islam ni ngay jullee mhm. ni muy gérer julli bi noonu lay gérer parlement bi mhm. ni muy gérer azaka ji noonu lay gérer ministère conseil ministre bi ni ngay nekkee ci àll ba ñu lay wax ni ngay génne azaka noonu lañ lay waxee ni ngay jiitee réew mooy la globalité de l'islam tubaab yi nag comme ñoom seen réew ya dañ fa xeex euh, diine mhm. ba diine ñu ber ko bokkatul ci dara euh, te loolu contexte bi mu amee woon mën nañ ko nangu loolu la ñu bëgg a imposer yi daal di bañ Mm-hmm. donc looloo tax réew yu bëree bëri ci ci ci occidentaux yi frères yi la ñuy xeex. Mm. parce que conscience politique bi frères yi am. keneen amul idéologie bi arrangé wu leen. idéologie bi arrangé wu leen parce que frères yi ñoom dañuy politique. Mm. boo xoolee àddina bi dëkku arab yi yëpp ñoo fees ñoo fees parlement bi boo demee tey Turquie mu ngi noonu ñoom même Erdogan bi daanaka idéologie boobu la yor. boo demee euh, fële Malaisie euh, Anwar Anwar Ibrahim nga xam ne mooy premier ministre bi idéologie frère yi la yor maanaam bi ñu ay nit ñoo xam ne. Mm-hmm. ay ay ay kii dañu xam addina est-ce que xam nga euh, Mouhamed Moursi bii nii laataa muy ñu koy muy nekk kii nu mu tuddati di jiite frère musulman yi. Mm-hmm. astaghfirullah di jiite Égypte est-ce que xam nga scientifique la. Mm-hmm. Mouhamed Badian bii jiite frère ñu tëj ko depuis 2010. bu ñuy tànn scientifique yi gën a rëy tey ci ci monde arabe bi ci la bokk. est xam nga banque yu bëri ci Europe banque taqwa bi nga xam ne Youssouf Nada le milliardaire moo ko jiite woon moo ko tabaxoon milliardaire boobu noonu mu ci frères yi la bokk. Mhm. de côté bu nekk dañ ci wàllu alal ay ay ndaanaan lañ fa ci wàllu xam-xam ndaanaan lañu fa côté bu nekk côté bu nekk ay ndaanaan lañu fa. donc euh, sénégale yi surtout yéen mhm. war ngeen gën a xam courant yooyu parce que mhm. sinon njaxas bi dafay bari taarix ramadan sawaay nañu xam ne du frère lu bëri lu frère yi di def àndu ci frères yu bëri dañoo contre Tariq Ramadan parce que ñoom frère maanaam les frères musulmans ni ñuy doxee du mouvement wu ndono du mouvement wu kii yaa fi nekk dee sa doom donn loolu amu fa mm-hmm. bu doon ndono la Tariq moom day day toog waaw bu doon ndono la Tariq Tariq ñi jiite frère su ñu bëri xamu leen mm. waaw ñu bëri xamu leen parce que moom munul dem Égypte. Mm-hmm. parce que bu fa demoon tey dañ koy jàpp tëj ko. dégg nga munul dem foofu noonu da moom dara c'est-à-dire l'islaamu tubaab la gën a yor. Mm-hmm. dëgg la xam ne l'islaam am na nu am na yu bëri yoo xam ne ay points yoo xam ne ni ñu ñi bokkuñ ci ak. moom bokkuñ ci même Sénégal bi bi mu fi daan ñëw. parce que mm-hmm. bul fàtte na taarix ku xam Sénégal. si daan na fi sëñ Moustapha Sy Djamil Mansour Sy si ñi ko njëkk a indi fii ci la bokk. dégg nga après dindoon na ñëw fii am fii ay relation yu bëree bëri. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaw man am na si conférence bu mu doon def keroog bi mu ñëwee fii sax même sénégal yi ñi nga xam ne dañu jàng les frères dañu mbëkkanteeg moom. ci conférence bi. parce que dafa am ñu mu dal ci frères yi. ñoo ñu jóg défendre ñu. waaw keroog conférence bu bu métti ci moom la. <laughs> waaw waaw waaw. waaw parce que boobu maa ngi fàttaliku euh, euh, Oustaz Cheikh Tidiane Fall. si ñu ko interpellé woon ci question yi ci la après bi ma bi mu paree laa laa gisee ak moom waxtaan ak moom mm-hmm. di ko laaj wafa wafa mooy yaayam quoi mm, dégg ñu waxtaan quoi mais ku xam réew mi la ku xam mm-hmm. Sénégal la mm-hmm. mais bu ñu def amalgame Hassanil Banna mooy maamam mais tekkiwul ne ci frère yi la te effectivement bokkul ci frère yi kon ñu ko tuumaal dañuy wax lu neex rek a daal ah, am am na solo am na solo euh, plainte bi tontuwaale nga ci je pense bien euh, non non waaw waaw xam nga am nga ci yaakaar mu dem ci jusqu'au bout ou bien. waaw mais xam nga plainte bi aussi euh, bu ñu bu ñu bàyyi xel benn affaire. Hmm. Euh, taarix xeexkat la. Hmm. te dafa dëgër bopp. taarix ku dëgër bopp la maa ngi dégg ñu naan euh, kii si suba ne Yérim dafa wax ne. naxaar bu dee dafa am lu muy tontu rek naxaar moom. waaw de waaw bu nu muy waxee day gën a taqal Ousmane. Hmm, du loolu la wax day gën a taqal Sonko. Sonko daa taq. daa takk. <laughs> dëgg yàlla loolu mooy laaj bi. <laughs> non moom kañ da koo bëggoon a takkal waaw mm-hmm. Mm-hmm. parce que bu fekkee texte boobu la ñuy wax. texte boobu moom léegi si yirim waxam déggoo fa lu jëm ci wàllu mm-hmm. murid. léegi il faut faire très attention à l'avenir parce que tey le mouridisme tubaab yi dañ ko topp di ko bàyyi xel. surtout ñu ngi ñu ngi gën di jege conscience politique bi dañuy ragal ne ëllëg ñi mën nañu xëy na ñun ci diine la ñuy àtteewoo. dégg nga mhm. parce que te loolu bu ko dàq mhm. lu mën a am ëllëg la mhm. te nu ñuy gën a jegee ne ñun diine moo ñuy attee suñu diine la ñuy atte woo tubaab bi mën na leen tuumaal affaire u terrorisme moo tax côté bii nii man pour man di ci wax li mu wax ci Sonko yooyu sax c'est pas important mais xaalis bi mu wax ne dugg na Touba donc loolu ku ñu ñun ñëpp xam nañ ne amul ay kàcc la ay sos la mais nañu bàyyi xel loolu parce que mouridisme addina bi Moustapha boo génnee ci ngay xam seen seen liggéey ak seen doole dégg nga te ñu leen di bàyyi xel. Mhm. te te te te sëriñu démb toog ci tool yi di di di di bay <laughs> nga loolu du sëriñu tey. Mhm. sëriñu tey ay intellectuel la dañuy dugg ci politique bi. ñu ubbee ko ci àddina ñu ubbee ci mhm. àddina. li nit ñi soxla ñu soxla ko dañoo bëgg a soxla dañoo bëgg jël euh, nguur. atte ko ci ñoom ñu ko gisee. te ñoom ñu ko gisee toujours day gën di jege lislaam te tubaab yi li ñu mënul accepter mooy l'islam politique saa yoo jógee ne damay politique ni l'islam di politiquer hmm. yow am nga problème boo ko jegee am nga problème te boo gisee France di xeex Sonko ak yooyu noonu lépp hmm. ñaar yooyu rek la ah. hmm. parce que ñun li ñu moom euh, France waru koo jëfandikoo bàyyi ñu beneen bi ñu jàpp ne kii nii dafa jege l'islam